bisimila daleen ak jàmm ci seen bi ngeen taamul seen bopp yéenekaay yépp daanaka dialogue bi njiitu réew Macky Sall woote lan yittewoo samedi tey ji ñaar fukki fa ak ñeent weeru février atum 2024 Walf Quotidien na li ko waral mooy opposition bi ak société civile bi mu woo ca booba lépp dialogue carton d'invitation yum leen yónnee lan xotti teg ne ni ko Macky dialogue wunoog yow li ñuy xaar ci yow mooy nga jàpp da tëgg élection yi coow li jeex professeur Babacar Gueye constitutionnaliste bokk ci aar sunu élection ne li waral ñu gàntal dem ca booba lépp dialogue mooy simulacre la Macky ciy tappale la yéenekaay bi gis ni daa janook ñëpp seul contre tous l'info ne dialogue bu mayiwul it dana wéet ndax boycott la ca gaayi woote fukki candidat ak juróom benn ci fukk ak juróom-ñeent yi conseil constitutionnel ne ñoo war a bokk ci élection yi ñoom ñëpp yéenekaay bi ni gàntal nanu wooteek Macky Sall Sud Quotidien it booba xibaar la joxe ne aar sunu élection it booba taxawaay la am niki forum civil ak Aminata Touré ñoom ñëpp neenu Macky Sall dialogue wunook yow jàppal dat tëgg élection yi FC 25 ci vox populi di sàkk ci njiitu réew mu joxe datu élection yi Boubacar Camara njëkk caa yëkkati kàddu ne li ñuy sàkku exigence sax la nag mooy nañu jàpp dat lataa ñaari fan avril sumb processus électoral tëgg élection yi Déthié Fall ne Macky fàttali njiitu réew ca booba lépp ne ñi mën a waxal ñenn la mooy fukki candidat ak juróom-ñeent yi conseil constitutionnel ne ñoo mën a bokk ci élection yi te ñoom ña ëpp di fukk ak juróom benn ya neen demunu professeur Daouda Ndiaye ne mënuñoo dajale ñu bokkul bëgg-bëgg fukki kuréel ak juróom-ñett yu société bi njiitu réew Macky Sall woote te wéekoon ca lu bare bari daa tàmbalee nax saay la ko waral yéene kaay baa ngay lim kuréelu société civile yu sakkan lool yu ne fas yéene wunoo dem ca boobaleb dialogue journal bi ne Macky ñi ko dese mu mën a yaakaar ca ñoom mooy front démocratique pour une élection inclusive candidat wam Ba ak Benno Bokk Yaakaar Thierno Alassane Sall di candidat ca boobaleb élection yéene kaay bi ne fas na yéene kalaame ji Macky Alassane Sall moom ànd ak yeneen candidat yi gàntal wooteeg Macky Sall ci dialogue bi laas ne fin de non recevoir ci boppam lañ ko tegal moom Macky Sall miy woote dialogue ngir jàpp ba sub élection yi dialogue bu l'observateur gisalul yoon dialogue sans voix la yéenekaay bi wax ci xëtam gu njëkk journal bi ne Macky gën a xam ne consensus du am waaye liñ naan bataille de l'opinion maanaam li nit ñiy gis fi mu ne lay lijjanti El Hadj ministre u a a conseil constitutionnel juróom benn yene booba dialogue de dañ koy wuute ndax duñ ca teew société civile beeg noonu na la ñu kaay bi na loolu la wax Le Quotidien ne Macky kay fim ni bañ la janool a la fësal bi ne candidat yeeg aar sunu élection ñépp lànk lañu def Macky moom ma ngay dëggal ubbiteb dialogue bi altine ca Sicap l'évidence ne ñam nar a dialogueel mooy Amadou Ba Idrissa Seck ak Boun Abdallah Dionne le regard moom gis ne Macky daa nar a wéet lool ca taabalu dialogue ba mu wote lii quotidien ne Macky Sall waaye lu waay mën a wax fi ne mooy wéy di doon maître du jeu le réveil ne Macky la doon def ba far daanu moom ca piège u boppam yéenekaay bi noonu la ñu yëgalee ne ñaar téeméeri kuréel yu bokk ci société civile bi ci wàll bu ne gàntal nañu woote Macky bi ni ko fukk ak juróom benn ci fukki candidat juróom-ñeent yi gàntalee yéenekaay bi ne li ci gën a garaaw nag fi ne mooy bañ gi sax yematut ci opposition bi ak société génnee ci délai yi conseil constitutionnel rëdd bëgg nañu itam candidat giñ tànnoon muy Amadou Ba ñu gën koo dooleel gën koo dëggal Dakar Times ne liy dëgg ci ñàkk wuy ji dialogue bi am altine mooy ñu baree bari ci candidat yi libération Ousmane Sonko ca boppam lan àndut loola lanu ragal bañ ko moo waral Macky woote ñu bañ ba tëdd ca naaj ba direct news sax xëy ci ñi bañ ak ñi nangu yéene kaay tuddee ko la grand derby ñi ànd ci ñu tëgg élection yi lataa ñaari fan weeru avril wala ñi bëgg yëgal ne Anta Babacar Ngom dañ koo gazé FDD di pour la défense de la démocratie ñi woote woon ndaje ngir ñaawlu dàqum élection yeeg date biñ taw a jàpp yéene cabinet police da a tasaare lan woote woon dara sottiwu ca vox populi ne Anta caravane la woote woon ca Parcelles Assainies waaye daanaka sottiwut ndax takk der yaa dab jóor koy grenade lacrymogène ca booba lépp journal aar sunu élection ma nga yëgle ne dimanche ñaar fukki fan a a jàppante àddina xam ne tey la sénégalais yi amoon sañ-sañu tànn seen njiitu réew Macky Sall xañ leen ko sàkku nanu it ci ku ne nga dem ca bërëb ba nga waroon a wote taxaw fa photo woon àddina ne tey nga waroon a wote waaye dan la koo xañ xañ googa di ñàkk tëgg élection yi di lu f ñaawlu ne Macky Sall fi mu ne conseil constitutionnel nag lay defanteel greffier yi doon defante keroog ak juge Mamadou Seck mi mandat de dépôt seen naataango Ngagne Demba Touré la UMS di dal ci seen kaw ci yéenekaay yu bari ca enquête UMS a ngay ŋàññ na greffier ci seenu ànd ñaawlu la dox seen digganteeg juge Mamadou Seck waral vox populi ne mbiram maître Ngagne Demba Touré dama nga yàq diggante magistrat yeeg greffier ya yéenekaay bi ne union des magistrats du Sénégal ñaawlu na la xew keroog diggante juge ba Mamadou Seck ak greffier ya te ne la greffier ya def kenn du ko bàyyi noonu mu sedd lépp lu ca war daanu ko ca def m UMS tuddee loola forfaiture bu kenn mënta baale la ñuy taqal greffier ya bokk na ca saaga ab magistrat yëkkati kàddu yi ngàññe teg ci kaw juge deuxième cabinet waaye itam dakkal audience ya amicale des greffiers du Sénégal ak justice naan waxuma la dakkal audience waaye liggéey ci boppam la ñuy dakkal ci bépp tribunal feek ngañ Demba Touré teggi wuñu ko loxo ñu fekkati artu ak dànqaafu yu UMS yooye ca libération ca boobaleb journal Juan bu nuy yëgal ni Atijari Wafa Bank nërmelooti na ci kanamu Bocar Samba Dièye liggéey coow li dox seen diggante libération ne tribunal joxati ca dëgg homme d'affaires bi football ca àll ba la indi woon néew lay bay sàkku ca Bocar Samba Dièye mu fay ko ñetti milliards yu teg mooy li ñuy laaj ngir mën dem màkk ci atum ren ji Le Soleil dëggal ko ne loolaay njëgu paquet bi yéenekaay bi di ñu yëgal itam juróom-ñaari dogal yu ñu jël ci conseil interministériel bi njëkkleloon aju màkk gi ci atum ren ji yéenekaay bi ne inscription yi di bindu fukki fan ak juróom weeru février bésub élection ci Sénégal la bés bi di tàgge ne société civile baa ngay woote vote symbolique fas yéene itam tëggal Macky Sall pot bi ma nga ñuy xamaleeg Thierno Alassane Sall yéene kaay bi sàmm valeur yi mu làmboo moom Thierno Alassane Sall ne kër ga mu màggee yaroo fa ab daara la woon Thierno Alassane Sall it yéene kaay bi di wax li waral muy xeexee Macky Sall ni dikk it ci kàddu yi muy yëkkati muy discours am bi ñu baree bari wéy di gën a dégg Khalifa Sall miñ fi déggaloon coowal ja weddi na ba nuppi andi cay firnde booba jamono ca l'info aale xuja jaw ma ngay artu Ousmane Sonko ci loi d'amnistie bi nuy ruumandaat la ca mën a doon ngaañteeg loraange sociologue baa koy faram-fàccee ca boobaleb yéenekaay laas di nu yégal ca boobale waxtu ne préfet bu Ndakaaru autorisé na manifestation ñi faral Macky Sall ak ñi àndut ak moom muy pro Macky yi wooteeb ndaje ci samedi ji waaye it aar sunu élection explosion gaz bi amoon ca liberté Zarko mi ne nanu ko woowee King Kong teg ci ne moom ni nu ko binde daa mel ni arme de guerre Jackson it booba jamono stade ma nga ñuy xamal ne ca guerre la jëm muy finaalu League Cup bi war a dox diggante Chelsea ak Liverpool dimanche bu ñetti waxtu jotee journal ba ne moom Jackson fi mu ne raaye ji rek la teg bët stade yi teg bëtam ci Habib Diallo ak Sadio Mané ne ñaari compteur la yuñ war a débloqué ci jongante yu war dox diggante Al Shabab ak Al Nasr dimanche ca Saudi Pro League foofa la ñuy jeexale ñaanal leen kendal ak jàmm dig daje altine incha allah